amis fidèles internautes Sénégal 7 euh, ravi de dans votre nouveau numéro entretien spécial euh, comme ni ñu koy faral di defee saa su nekk di leen souhaiter une très bon et belle journée euh, tey nag am nañu plaisir ñëwaat bu baax a baax ci évolution actualité bi bokk na ci ponk yi nga xamante ni moom mooy journée discours bi nga xamante ni Ousmane Sonko tenir na ko à l'endroit de ses militants mu amoon nag conférence politique wax ci ponk yu am am solo xëy na dinañ ci ñëw tuuti tuuti Gabriel bokkoon na ci ñi nga xamante ni nii Euh, assisté woon nañ assises yi en même temps aussi ex détenu la bi ñu yi ñu jàppoon euh, ci période euh, émeute yi donc moom mu teewal fi en même temps waa diaspora bi ndaxte côté Turquie lay milité mais membre MODAP la donc dinañu ñëw bu baax a baax ci situation boobu parce que jamono ji ñuy wax ak yéen pays Maghreb yi am na sénégalais yu fa nekk mais ñu ngi dund lu méttee métti peut-être que immigration clandestine bi moom moo nekk problème boobu moom moo ko indi wàllum tabaski bi gis nañu démb ki nga xam ne moom mooy njiitu réew mi demoon na fa li nga xam ne moom mooy ci gétt yi jàllale fa message bu ama am solo mais aussi sénégalais war nañu amaat taxawaay bu ama am solo pour yombal miir yi jamono ji paas yi commencé na yokku xar yi gën na cher bu ko defee ko ci nekk mun ci jàppale sa morom c'est un peu boobu lañu ñu fas yéenee tënkee waxtaan bi euh, Mamadou Moustapha maa ngi lay nuyu di la ziar moo bàyyi la nga nuyoog internet yi ñu tàmbali euh, di nuyu internet yi ñuy seetaan yëpp si Sénégal set ak fu ñu mën di nekk di am mbégte tey ñëw nekk seen invitation Amdy Moustapha Mbacké euh, nekk membre Modab comme ni ñu ko waxee waaye bokk Pastef doon milité woo Fès Turquie aussi nekk ex détenu politique. xëy na am na ñu mën a dégg sama tur ñu bëri peut-être sama image. mën naa rëcc ñu bëri parce que sama photo daawul affiché wu lu bëri trop. mais été arrêté yaakaar naa c'était le 25 juin l'année passée la woon jusqu'à 28 février waaw mmh. uh, ah, d'accord tey ma ñëw pour ànd ak yow ci émission bi di am mbégte bu baax ci invitation bi. alors nga nekk aussi en même temps membre coalition Diomaye. Ouais, euh, donc démb ñu ngi ci contexte tabaski. Mhm. gis nañu njiitu réew mi génn euh, mhm. dem ci. yenn euh, bergerie yi. Hmm. di waxaale xar ainsi de suite donc mu mel ni euh, dafa am benn message. Hmm. bu mu doon véhiculer même su fekkee sax am na ñuy wax ne président bi dafa oyof de trop. Hmm. par rapport ak peut-être yenn image yi mais. Euh, lan nga jàpp ni carrément moom la bëggoon a jàngale parce que ba mu fa jógee aussi dem na Soumbédioune. ci cordonnier yi. jënd saak jënd dàll. donc loolu wax la communication la. message la bu mu bëgg jàllale ci wane ne jot na. Euh, ñu maanaam ñu fexe bay dundee li ñuy defaree ci réew mi. Mm. aussi tamit ñi nga xamante ni ay liggéeykat lañ nekk doomi réew mi ñu leen di jàppale ci seen liggéey. Mm-hmm. Euh, ndax euh, tamit wane ni président nekkul lu extraordinaire ki koy incarné nit la comme nit ñëpp dafa war a am tuuti oyofte gum wane jaxasoog askan bi. parce que mm. nit ñi baleen jiitee il faut nga jige leen. ngir ngir mën a xam dëgg-dëgg seen ay ah, seen ay jafe-jafe. Mhm. aussi tamit ba bëggee saafara mën la yomb. Mhm. man li ma gis mooy démb li mu def acte bu bu rafet la lu ñuy rafetlu la wala na ne moom président bu jege askanam la tey loolu day tax cofeel gi nit ñi commencé am ji moom gën a yokk. Mhm. Ah, ndaxte miinuñ ko bu baax ci yeneen président yi. si tamit waxtaan bi muy amal ak ñoom wane ne moom vrai sénégalais la waaye vrai sénégalais la quoi ah, nekk fa tamit nekk fa tamit di wan ay erreur di jaay ne moom xamul affaire yi wane na ne man doomu doomu dëkk bi laa mhm. ah, ci fii yëpp laa jaar xam naa wa gëmaloon wan na nit ñi complètement que ne moom sénégalais la comme sénégalais yëpp mhm. ah, te loolu am am solo la te bi mu ko da yëg ne kii triché wul quoi kii li muy def nii. ku yàgg dem di waxaale ku yàgg ku yàgg waxaale la. <laughs> ko di waxee. ku mm-hmm. am na solo ah, am na solo lool. Ah, surtout li mu mujjee dem suñu jun. Mm-hmm. que jot na réew mi ñu dimbale bu baax artisans yi. Mm-hmm. Ah, ba ba bañ fexe ba ñiy def maam góor góorgóorlu. di créer di defar yu am solo sénégalais yi di ko gis di ko jënd quoi. loolu am am solo la. loolu lu lu baax la te it politique boobu la ñu jaay ñoom mooy changement bi ñu waxoon. mooy rupture bi mooy rupture bi. Mhm. Euh, fexe ba li ñuy defaree ci réew mi waa doomi réew mi di ko utiliser. Mhm. waaw loolu lu baax la yaakaar na jaajëf alors euh, comme ni ma ko waxee dimanche mhm. euh, ki nga xam ne moom mooy euh, président Ousmane Sonko. tenir na discours. la mu ca wax bëri na. Hmm. waaye ku nekk aussi ak lala ca soxal. ak ku nekk ni nga koy déggee. alors euh, bi nga xëyee gis ñu bëri génn di tontu euh, di joxe ñoom aussi seen seen point de vue par hmm. rapport ak sortie bi mu def euh, naka nga ko jàngatee parce que démb gis nañu honorable député hmm. Abdou Mbow. ñu jël ko RTS. moom aussi mu wax xalaatam ci discours bi. donc tey ñoom aussi yoon la. bu ñu amee idée bu warook moom ñu joxe ko. mais yéen en tant que membre. Hmm. naka nga gisee sortie bi. Euh, sorti bi man maa ngi fa woon déjà. ah yaa ngi euh, assisté naa hmm. discours bi yëpp. Euh, mais bi ma xëyee xool journaux yi gars yi di am ay point yu ñu ci tànn di di ko def à la dama dama wax ne Sénégal ba léegi laf fa doon metti te wéragul ko ndax Ousmane daa amoon ay objectif ci bi muy wax bokk na ci objectif yi mooy fexe ba débat politique bi mu orienté ko. Hmm. loolu déjà am na lu mu ci réussir mais politiciens yi ñoo nanguwul pour fexe ba politique nekk affaire u idée affaire xalaat ñoom toujours ci ay détails lañ gën a mën sawar di wax imaginez discours boo xamante ni nii évoqué na lu concerné Sénégal maanaam euh, suñ mbokki palestiniens yi mhm. li ñuy dund lim ci wax ay ay kii yu ay ay taxawaay yu am solo la wax ñaan président de la république son excellence Bassirou jomaa Diakhar fay mu jël ay dispositions yu xamante ne ni yu ferme lay doon. Mhm. pour ñu taxawu suñu mbokk yooyu nekk si loolu lu jaroon waxtaane la. Mhm. parce que loolu benn information bu wala bokk euh, maanaam wax maanaam kii lu am solo loo xamante ni lu lu matoon dut baaraam la mais defuñu ko. Mhm. beneen bi mooy woote na pour. Euh, sénégalais yi ñu def des vacances citoyennes mm-hmm. moom dem ci tool yi moom ba ci biir mi nga wax ne même président moom ak tous les ministères mm-hmm. tous les DG danañu wàcc ci ci ci biir vacances yi dem def ay ay ay euh, ay liggéey yu am solo vacances mm-hmm. agricoles ah, dafa tabax ay école ànd ak armée nationale loolu lu am solo la lu ma doon waxtaane la ci biir leeral nañu loo xamante ne nii lu nëbb woon la Sénégal yu bëri mooy impôt yi ñuy toppee chef de presse yi maam maanaam président. dette fiscale bi maanaam groupe de presse yi. Mhm. naka lay naka la amee maanaam lan mooy lan mooy impôt yi Sénégal yu bëri daan nañ dégg impôt impôt mais xamoon nañ exactement lan la mu leeral ne yow journaliste bi salaire bi ñu lay fay si la ñuy teq benn pourcentage loolu lañuy dajale. ne ko mhm. boo ko jëlee ci xaalis suuf sa liggéeykat boobu dama nga jox ko état moom mu jël ko ci yow bu pare téye ko ci poosam. joxewu ko léegi moom mu leeral ne loolu sàcc la dañ ko war a joxe. Mhm. léegi ñoom ñu bëgg a retourner wu ma ma retourner wu contre Ousmane di ko di ko wax lu nekk. Mhm. ci ne li mu wax du yoon daa war a baale. te loolu lu am solo aussi tamit li mu waxaat ne day jël référence ci yoon ci yonent bi sallam mhm. ah bay tudd ay histoire yu yu yu yu raar ci ñi nga xamante ne ni dañuy jàng diine sama classe dañ koy xam. mooy bi mu wax lu mel ne sulh Hudaybiya ak bi mu waxaat fathu Makka. di ko nduróole ak maanaam parcours politique am te ñu nuroo trop nag ndax yoon sallam bi yàlla dogalee euh, maanaam mu mu mu mu ñu génne ko mag mu dem ma Madina mm-hmm. euh, dem ba commencé am doole dafa bëggoon ñëw ne dafay umra mm-hmm. bi mu ñëwee ñu nekk màkk ne ko doo ko fi defee doo ko fi defee mm-hmm. moom mu ne leen paréwuma pour ma ma man ñëwuma pour xeex yéen dama ñëw pour maam pour pour jàmm léegi si la ñu waxtaanee ba de ba signé benn pacte Ah, loolu mooy xudaybiya sul xudaybiya mhm. maam ñu dëppoo ci ne ko année bii doo def umra mais année prochaine bu ñëwee nga def umra maam dans dix ans yu ñu jëm ñun ak yéen duñ ci xeex mhm. te ku jóge si ñun ñëw si yéen day da ngeen koy delloo si te ku jóge ci yéen ñëw si ñun day toog mooy pacte boobu noonu ñu signé woon mhm. bi mu ko leeree nga xam day mel ni mu yonent bi mooy persan bi mais malgré loolu signé na ko mais résultat bi mu ci amee mooy ginnaaw loolu ci si la ko yàlla defalee mu def fatu màkka fatu màkka bi la jub man la nduloolee ak ak élection yi nga xamante ma si la mujj màkka yëpp nekk ay jullit mu def fa xutbaam boobu mu fa def mhm. maam loolu lu am solo la lu luñ mënoon dut baaraam la mhm. mais boobale xam ne ci lañ waxtaanee mooy Sonko maanaam joxul cër moroomu opposant bi da leen di minimiser Sonko day xeex presse bi te pour pourtant en réalité waxul dara luy wane day xeex presse bi man li ma gis mooy li mu wax ñun ñëpp loolu la war a wax mhm. benn journaliste bi bindati ci kenn di yàq diram dafa war am source. Mhm. mais waruñ la waruñ waaw waruñu waruñu waruñu bàyyi ba journaliste bu ko neex journaliste bu nekk mu am sañ-sañu wax lu ko neex ci nit sans mu am ci benn preuve loolu du yoon. Mhm. loolu mu dénoncé même journaliste seen bopp ñoo ko waroon njëkk def. Mhm. parce que loolu mooy dëgg nit balaa ngay tuumaal nit da war a am maanaam foo ko teg waaye jëkk di wax ci nit amu fenn foo ko teg loolu du yoon. d'accord mais aussi euh, benn benn côté est-ce que ñoom mm. ñiy wax comme exemple ku ci mel ni Mamadou Ibra Kane mm. ah ba ci Anta Babacar Ngom ñoom ñëpp xam nga ay candidats la ñu woon ñoom ñëpp bi ñu demee dañu ne on a d'autres priorités que ce discours la ñoom loolu la ñu joxe comme position mais aussi est-ce que seen position boobu doo leen ko nangul li sax duma leen ko nangul mooy ñoom ba tey doo leen dégg ñu ne tel et tel la ñu waroon wax waruñoo wax tel et tel ñoom dañuy toog rek di di di di di di critiquer pour critiquer parce que Sonko wax na li essentiel yëpp wax na ci ne dinañu wàññi dund bu cher bi. Mhm. wax na ci actualité politique bi fi mu toll ci réew mi te it foofu conférence politique la woote woon nga du fa ñëw xanaa di wax lu bokk te politique. lépp lu concerne politique wax na ci. te lii ëpp solo ci actualité bi jamono ji wax na ci wax ci indi tamit ay éclairage yu am solo mais aussi ñoom Bougane ci seen rôle la ñu nekk aussi. non Bougane bu parce que ñoom seen sortie yi ñuy def nii ñoom aussi am nañ droit joxe seen xalaat. xam nga xam tey boo nee ma Anta Babacar Ngom sax mën naa nangu ci lu la ni mais Bougane la mooy rôle dafa am problème dafa am ay dette fiscale plus de 2 milliards. ci li ñu wax mhm. moom moom en tant que kuy wax ne anti système la moom waroon na rus di am problème yooyu. d'accord Bougane maam il n'est pas bien placé pour wax jamono jii nii parce que moom dafa décevoir sénégalais yi moom li muy woote àndut li muy def. moom même sax bu yeneen bu ñeneen doon def loolu moom waru ko def quoi waroon na joxe un bon exemple. Mhm. moo tax Bougane placé il est mal placé pour wax jamono bii mais yeneen opposants yi wax. comme ku mel ne Anta ku mel ne xëy na euh, kan sax Thierno Bocoum. Mhm. xëy na genre yooyu yàgg yàgg leen gis ci ah, terrain bi. ak soxna bi Abdou Mbow def absolument Abdou mhm. Mbow ak. ñëpp ci waa APR waa benn bokk yaakaar ma ne leen bàyyi ñu wax. parce que mhm. Sonko wane na leen ne leen man ba ñu ma opposant. Mhm. te it du ma xañ kenn mu opposé bi à ah, sa plus simple expression. yaa ngi gis loolu la wax. dem mhm. maa ngi gis beneen journal di titre que ne Sonko day manigancé pour réduire l' opposition à sa plus te loolu bokk ak li xew. waxul loolu contraire bi la wax. d' accord maanaam woon na leen ci ñu wax ci débat d' idée ni mu doon opposé wu moom. pare na pour ay opposants mel noonu wala lu ko lu ko gën a metti suñu ma fekkee am nañ am nañ am nañ am nañ matière quoi pour def loolu mhm. alors am na solo euh, Modou mhm. Moustapha comme ni ma ko waxee ex détenu nga euh, tey bi ñu commencé assises yi mhm. yenn ex détenu yi waroon dem mu xaw a jur sax ci invitation bi est-ce que war nañ dem est-ce que war ñu dem d'abord loolu naka nga ko jàngate euh, assises yi lu am solo la jamono bi ex détenu yi tamit jàpp naa dañ ci war a teew parce que am nañ ex am na expérience bu ñu dund. Mhm. seen xalaat danañ koy soxla ci ci ci waxtaan yu mel noonu. moo tax seen teewaay man gis naa ne euh, lu lu lu normal la te lu war a am la. Mhm. man ànd naa si. Euh, ñan ak ñan ñoo dem ndax ñun ñoo waroon dem loolu beneen beneen sujet la. Mhm. mais ña fa dem ak lu mën a xew ay détenu lañ ku mel ne Cheikh Bara Ndiaye détenu politique la war na mën a dem ku mel ne Pape Abdoulaye Touré ak li dund yëpp. ci ci ci ci ci ci. tortille rek yooyu c'est mm-hmm. normal mu dem Fall Fleur ak ñeneen bu ñu leen fa woowee c'est normal ñëwoo leen fa seen xalaat soxla nañ ko bu defar assises yi parce que ñoom mm-hmm. dañoo dund injustice ah aussi tamit xam kaso yi ah aussi jëflante ak ay juges juges yooyu noonu doon mel ni kuy ku am benn agenda politique bu ñuy exercer seen kaw. Mm-hmm. yooyu yëpp expérience boobu boo xamante dañ ko war dañ ko war dañ ko war a xam. moo tax seen teewaay jàpp naa ne lu am solo la ci assise yi. Mhm. man loolu laa gis. alors bi ngay déggee yenn recommandations yi nga nekkoon koo xam ne peut-être dund nga situation carcérale. Mhm. yow euh, recommandation yi tey buñ la ci doon laaj yan point yu gën a am solo ngay wax euh, gouvernement bi mu bàyyi ci xel yan lay doon. Euh, jàpp naa ne recommandation yi yëpp yëpp la war a bàyyi xel. warul warul jël tànn di jël bii di bàyyi bële parce que déjà ñu ko def dañu jël seen temps def ko. Euh, lépp loo xamante ne nii amul du am du am du am benn ñàkk dëppoo ak sunu ay euh, maanaam xëy na constitution bi wala yu demee noonu war nañ ko jël en compte. Mhm. fexe ba xool ñu koy mettre en œuvre ba Sénégal yi mën a gën a gis seen bopp ci seen justice. Mhm. parce que li ñu war a njëkk a def mooy fexe ba suñu yoonu réew dëppoo ak suñu ay aada dëppoo ak suñu ay gëm-gëm. Mhm. maam bañ a maam mu bañ nekk loo xamante ni li fi tubaab bi bàyyi woon lay lay continuer wala dañ koy inspiré woo ci France ak yooyu. Mhm. dañoo war a fexe ba ñun ni ñuy dundee dëppoo suñu suñu maam suñu suñu suñu société daal ni mel. Mhm. Ah, man loolu laa gis moo tax gis naa ne recommandation yi yëpp la war a jël en compte bu ko defee maanaam ñu fexe ba si c'est possible ñu ñu ñu ñu a manoeuvrer yëpp ñu def ko bu bu loolu tamit ñu xool yëpp solo ñu jël ko rek. Mhm. mais gis naa ni yëpp am yëpp am solo. Mhm. alors tey yaa ngi doon militer fa li nga xam ne moom mooy Turquie. Uh-huh. donc ñëw nga ci benn situation bu alarmante boo xamante ni peut-être jot nga ko xam ci sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk. Mhm. donc est-ce que mun nga revenir at un peu ci loolu. waaw loolu dinaa ci sawar bu baax xam nga Turquie maa ngi fa dem 2018 foofu fekk maa ngi demoon en tant que étudiant. fa jàng ba am sama master. bi ma paree si la commencé di liggéey andi nekk Istanbul foofu di liggéey ak Sénégalais yi euh, bi ma jëlee édition ñibbisi c'était euh, avril 2023 le 8 avril yaakaar naa lay tollool si laa ñibbisi Sénégal. Mhm. ñibbisi pour toog 8 avril euh, ma commencé liggéey fii ak benn entreprise bu nekk fii bu ñuy wax Biga Home liggéey nañ même pas deux mois rek suñu tombanteeg ñu jàpp ma parce que man. yow loolu la arrêté. ay dañoo wax ne dañoo demoon pour dindi barrières yi. mooy ci période tabaski bi ñu nag les quatre députés la heure bi daaw bi daaw juste mhm. euh, man la woon ak ku ñuy wax Omar Bamba Diop mu jiite Omar Bamba Diop mu jiite Modap mhm. euh, amoon na Cheikh Thioro Mbacké honorable Cheikh Thioro ak euh, ku mel ne Ba Bakary Diédhiou Alfonso mhm. ak Samba Dang ñun les la ak yeneen quatre personnes man ak Omar ak yeneen quatre yeneen deux ñun lañ boole jàpp ne ñu da ngeen ñëw pour dindi barrières yi ci loolu bi ñu xëyee suba si lañ bàyyi les députés après ñun ñu téye ñu ba ba mat ba mat huit mois daanaka. Mhm. maa ngi doon wax Turquie Turquie man dëkk bu ma xam la bu ma miin la trop. Mhm. Euh, bi ma fa maanaam sama ginnaaw lii commencé xew. ok maanaam yaakaar naa année bi weesu la commencé di xew. man xëy na euh, fin deux mille vingt deux début deux mille vingt trois amoon na yu ndaw mais bëriwutoon. Mhm. daanaka boo déggee benn kaa nga koy déggaat day yàgg mujj gi dañoo dem commencé mel ne état bu gi dafa dafa bëgg dafa bëgg génne étranger yi nekk foofu. Mhm. dafa mel ni da leen soxlaatul ci réew mi wala genre yu mel noonu. d'accord di leen teg ay bundu xataal yu metti maanaam koo xamante ni amul kayit pour pour nga am ko bu defee demande doo mën a am dañ la koy jafeel trop te buñ la jàppee ci moment bi ngay jëmale ci ay kayit dañ lay tëj buñ la tëjee dañ lay proposé génne la nga ñibbi mhm. buñ la proposé nga ñibbi yow ngay. insister di giimut beneen yoon pour lijjanti sa bopp bi ñu la jàppee dañ lay dipot dipot mooy dañ lay jël li ñu noonu yóbbu la directement Sénégal bàyyi la aéroport bu jeex. jëppal la takk der yi. Mhm. loolu nag dafa jural jafe-jafe Sénégal yi parce que daan nga xam dañ faa dem investir ba am seen ay business yu baax ay cargo la wala ay GP wala sax di am ay ay ay ay relation ak yenn entreprise yi nekk foofu di liggéey. Mhm. di di dimbale seen ay njaboot fii. ñu mel noonu bu ñu xëyee xëy rek ne leen da ngeen di génn dëkk bi ci. anam boo xamante ni tegul ci yoon loolu tooñ la. Mhm. parce que ñoom ba ñuy dem dañoo wut seen visa fay la ñu war a fay bi ñëwee tamit bëgg séjour lépp lu ñu leen laaj joxe nañ ko pour am séjour. Mhm. kon du yoon. ñu jot loolu je crois que dañ da eh, ministre des affaires étrangères. war na xool war na ko xool parce que problème bi yàgg na yàgg na trop ñu ngi ci wax boobu ba léegi. amul benn solution boobu ñoom eh, yéen accédé goo leen au pouvoir. bi ñu commencé di am waaw parce que ndax boo xoolee jour le 24 mars mooy jour bi nga xam mooy jour élection yi. am na mhm. Sénégal yi dañoo jógoon si fii wii li ñu nekk ñëw di voté si ci seen bureau de vote foofu ñu fekk leen ci bureau bi jàpp leen. image yi di di. Ah, daw ba ci jour élection yi maam bi jour bi ñu wat leen fekk ci seen bureau yi jàpp leen loolu nekk ay images yu ñaaw yoo xamante ne euh, maanaam warul woon am. Mhm. état bu Turquie bu doon jox na dëgg-dëgg respect état bu Sénégal. Mhm. bi mu war même sax buy jàpp ay doomam du leen fekk ci biir. ci biir lieu de vote parce que loolu jamono bu ñu def seen ay devoir citoyen la dañ leen war a respecté. Mhm. xaar leen si biti bañ pare sax au moins. waaye fekk leen ci biir euh, centre bi di leen jàpp loolu lu ñaaw la te loolu moo tax maa ngi xaar ci régime bu bees bi. Mhm. ñoom ñu jël ci ay matuwaay. Euh, fexe ba sénégalais yi nekk turki seen taxawaay wala seen nekkin ñu gën ko ñu gën ko sàmm fexe ba seen li ñuy jooy yëpp ñu saafaraal leen ko. Mhm. ñi bëgg kayit ñu fexe ba suñ ko maam kayit yi bañ leen a jafe ñu man koo am. Mhm. ñi nga xamante ni tamit dañ ko am bëgg renouveler ñu tamit ñu fexe ba conditions yi yomb ña fa nekk tamit di liggéey ñu fexe ba. taxawul leen ba seen conditions yi ñuy liggéeyee mën a tegu si yoon mhm. ndax man li may waxee yow nii jam jamono ji cargo yu bëri mu ñu daan jël bagage yi di indi Sénégal par semaine di def ay ay ay yooyu mhm. cargo yu bëree bëri dañ leen a tëj leen tëj Sénégal yu bëri nekkoon foofu léegi gën nañ leen dëkk ba ñu bëri parce que daanaka kenn nekkatu fa mhm. ña fa des di góorgóorlu conditions yu métti lañuy dundee Turquie yi nangootuñ sax jox leen location bu ñëwee di wut location dañ la koy jafeel. Mhm. ah en mhm. tant que yow moom nit ku ñuul nga wala étranger nga rek dañ lay jafeel location bi. Mhm. di la laaj ay maanaam condition yu métti yoo xamante ni doo ko mën a maanaam day maanaam c'est c'est impossible nga mën ko nga mën ko mëntale. maanaam benn genre politique la ñu def pour pour mun a bloquer étranger ñu développer seen business parce que Turquie ñoom seen dëkk dafa am benn genre crise bu fa nekk te ñoom jàpp na ni crise ko waral. mooy étranger ñoo fi ah, bëri. esprit boobu lañ ci am. esprit boobu lañ ci am loolu mais loolu mais loolu du yoon parce que ñun jamono bi ma waxee yow dagaa dagaa gi ñu nekk Turquie duñ fi jeex dañ fee bari mais bien sûr. ah boo fa gis ñoo koy tabax. Mhm. ah pourquoi ñoom ñu mën a nekk suñu dëkk nekk fi si jàmm kenn xattalu leen. ñeneen nekk seen dëkk ñu bëgg ñu bëgg leen xatal. en tout cas yéen a ngi pour ah. régler ce problème. waaw waaw absolument moo tax ñu ngi ci def liñ man ñu ngi mm-hmm. fexe pour jéem a eggale information fi mu war a egg yëpp. Mm-hmm. ngir bëgg euh, ñi si war a taxaw taxaw si. Mm-hmm. ndax Turquie dëkk la boo xamante ne nii étrange bu fa sonn parce que ñoom dañoo bëri ay ay ay ay ay ay doom ci ci yeneen dëkk yi. dëkk bu mel ne Allemagne lañ fa toll. parce que ëpp nañ fa 5 millions booy xool. est que am nañ fa problème yooyu noonu ah. kon war nañ mën a ak yeneen war war nañ mën a ubbeeku. te loolu yaakaar naa ne état bi ñu ko seqal. fekkente ne ñoom am nañ benn maam benn benn benn taxawaay bi. moom dañuy respecté seen ay doom. parce que lii Sénégalais yi di jàmbat nekk na ñëpp ñoo koy jàmbat te yeneen Sénégalais ëpp ñu fa. Mhm. am na yeneen ah, am yeneen jaaliyaat mooy yeneen doomi réew yu fa ëpp yoo xamante ni jàmbatuñ yi. kon sénégalee bi ñu ko jàmbat ça veut dire que état bu Sénégal taxawaay moo des war a taxawaay bu mu moo des am na solo donc hmm. fi ñu ñëw ci dernier point bi wax naa ko sànq hmm. muy tabaski bi ñu jëm hmm. ah fu mu toll nii paas yi yëpp commencé nañ ko yokk te carburant yokkul dara yokkul donc il va falloir nag état bi aussi jël ay responsabilités par rapport ak loolu xar yi aussi euh, da nga ciy gis ñoo xamante ni euh, prix yi ñuy jaaye moom euh, dafa doy waar xar yi mm. tuuti lañ lay wax ay waxu cent cinquante mille mm. cent soixante mille donc loolu dafay baax ñu rek ministre du commerce bi mu mm. jëm ko régulariser par boo seetloo moom lu yàggu dara si ginnaaw def na def na defoon nañ conseil interministériel mm-hmm. Ousmane Sonko ak moom yëpp bokkoon nañ ci waxtaan wax Sénégal yi dig leen ne leen xar yi dana yomb mm-hmm. te it moom def na ay démarches pour xar yi mën a yomb ci wàññi dund bi nga xamante ni moom la éleveurs yi di soxla pour yar seen xar kon yooyu bu ko defee li soxla mooy siwi maam ñu topp leen fexe ba comme que yombal nañ man defal nañ leen ay conditions pour xar yi mën a yomb bu xar yi yombul ñoom yoon lañ ñu taxawaat laaj la moo tax xar yi yombul. Mm-hmm. Euh, te it euh, xëy na événement moom bu jotee comme paas yi yokk ak yooyu daanaka maam yàgg na am Sénégal. gëm naa ne jëf jële ko fi mën na bañ doon lu yomb ndaxte heure boo xamante ne nii rek demande bi demande bi yokk na mhm. maanaam maanaam liggéeykat yu bëri heure bu seen demande yokkee rek daanaka dañuy bëgg ñoom profité ci loolu mhm. pour ma pour pour am yeneen yu ñu ci dugal euh, moo tax suñ suñ tollee fii paas yi yokk ak yooyu loolu xëy na problème la mais problème bi gën a sérieux bi ñu war a gën a xool mooy xar yi fexe xar yomb ci nit ñi mhm. parce que loolu dañ ko wax clairement dig ko sénégalais te jàpp naa ne ñoom ñu ngi ciy def li ñu war a def pour mu yomb te am naa yaakaar ne xar yi dana yomb. Mhm. xëy na bu ñu bàyyi tabaski bi gën a jige jamono boobu noonu mën naa am seen ñoom li ñu liggéey résultat bi commencé di feeñ mhm. euh, ndax normalement Sénégal bu amee cent cinquante mille war nga mën a am xar bu baax. Mhm. Euh, fekkente ne fexe nañ ba xar yi war a jóge Mauritanie Mali egsi ci réew mi ni mu war a egsee ñu fexe ba ñi xont tamit li ñu war a utiliser ci ngooñ wala ripaas xeet yooyu yëpp. maanaam mu accessible si ñoom. bañ a cher euh, amatuñ benn amatuñ benn benn lay pour pour seeral xar bi ki nga xam ne moom da doon yar. di yar depuis peut-être problème bi foofu la gën a situé xaru xaru yar yi xaru yar yi bu seeree c'est normal mais xar yi nga xamante ni mooy jóge si euh, maanaam sous bi. di yooyu warul seer dafa war yomb. Mhm. waaw mu tax jàpp naa ne ak li ci état bi wax ne liggéey na ko si. def na ko si ak li mu diggee benn cent dix mille wala benn cent war nga mën a am xar bu baax war nga mën a am xar bu baax te démb ñi ngi gis président di waxaale xar cent cinquante mille ça veut boobu noonu bu dee yëpp noonu la ñuy jar bi mu waxaale nii tuuti may ma photo bi bi mu waxaale nii war na ëpp cent soixante de bi ah. xaru yar la yaa ngi gis xanaa gisoo xar mi yow en en tout cas xar bi moom bu dee cent cinquante mille lay jar ça veut dire que xar yomb na Sénégal waaw mais waa ji mën na ko ko may defal ko xéewal nag mais xar bii ma gis nii nii macha allah bii war na mën a ya jar benn deux cent mille. non lii temps normal xar yi day cher. Mhm. mais bu ñu tollee tey ci tabaski Sénégal ñu waxaale xar bu mel nii cent cinquante mille que ministre bi liggéeyam mi ngi commencé feeñ. ok waaw nañu am yaakaar ne am nañu respecté normes yi ministère bi joxe danañ jaay xar yi ci ay prix yu normal. mais nag éle eh, Sénégal en fait il faut il faut élevage bi aussi ngeen dox si jéego. par rapport balaa mm-hmm. contexte yi di xew. Mm-hmm. xam nga tabaski c'est un sur un an. Mm-hmm. tey balaa ñu faa yegg. peut-être yéen yéen a ngi soog a ñëw sax au pouvoir peut-être loolu daf ciy jouer mais exemple fii ak déwén war nañu mën a am élevage bu am doole fii par rapport ak loolu. normalement te jàpp naa ne ñu ngi siy liggéey euh, côté élevage côté mbay ak napp yépp jàpp naa ne premier ministre nee na yéen ñëppay bay. <laughs> waaye loolu moom ak avec fierté parce que ñun loolu yàgg nañ ko def c'est pas la première fois. ñun loolu déjà ñun ñu bokk Pastef miin nañ ko. Mhm. vacances agricoles ak yooyu noonu miin nañ ko déjà loolu ci suñu suñu DNA maam suñu DNA nekk. Mhm. Ah, ñun loolu du problème si ñun xanaa kay ren ñi ñu ci war a àndal mooy sénégalais yi ñu ciy woo. <laughs> ñi nga xam ne daf si am ñoo xam ne du ñu bay ñi nga xamante ni dawuñ ko def ñooñu laa yaakaar ne mën doon problème si ñoom mais am di Moustapha fii gars yi nee nañ di ñoom ñëppay bay de ah ñun de dañ dem bay man moom dans tous les cas dinaa leen topp ci vacances yi ku bayul dinaa ni ministre bi wala DG en tout cas loolu daal dana neex trop te it yaakaar naa dana doon ay ay ay moment yu am am solo mhm. xëy na ñun buñ ko commencé mën nañu influence ñeneen ñi buñ ñoo fekk ñu fekk si ñu. Mm, incha allah incha mm-hmm. allah. Mm. merci beaucoup amoon naa plaisir dalal la. Ah, di la jaajëfal mm, bu baax a baax di la partagé man maa gën a am mbégte kontaan naa bu baax bàyyi la nga tàggatoo ak internet bi. waaye tàggatoo bi rek mooy sant yàlla bu baax. Mm-hmm. santaat waa Touba ga ma jógee waa rawatina waa Darou Salaam. Mm-hmm. Ah, ndax jamono bi man maa ngi maa ngi Darou Salaam foofu laay milité woo. ci Pastef bu Mbàkke. ci département bi. Euh, maa ngi nuyu ñooñu ñëpp di leen ziar ñoom ñu mboolem ñi nekk foofu yëpp di leen encourage ci liggéeyam sa li ñuy def mm. waaye tamit di ñaanal bu baax a baax euh, son excellence Bassirou Diomaye Faye avec son ministère son premier ministère président Ousmane Sonko. Mm-hmm. yàlla defal leen tawféex si liggéey bi ñu sumb ba yéene bi ñu am ngir defar Sénégal defaraat réew mi teg ko ci yoon bu baax ñu am ci ndam lu rëy rëy rëy mu nekk maanaam luy jëriñ Sénégalais yëpp. Mm-hmm. maa ngi lay sant yéen tamit yéen waa Sénégal 7. en première fois ma fi ñëw. Mm-hmm. am naa mbégte lool teewoon fi tey. merci beaucoup di leen sant bu baax. jaajëf amoon nañu plaisir dalal ko ni lay demee saa su nekk euh, mention spéciale à la régie tuuti Ismaïla maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax nii lay demee saa su nekk sur Sénégal 7 restez connectés dinañu ñëw bu baax a baax ci suñu ay programme waaye aussi ay reportages yu ama am solo par rapport ak contexte tabaski bi tout à l'heure dinañu dem ci marché yi dem ci daral yéeg yëpp bu ko defee ngeen dund événement bi ak ñun di jaajëfal euh, damay dem ba diwaanu Kolda di jaajëfal Moustapha Diaw. donc Moustapha Diaw muy ndaw bu am do solo foofu noonu di di jàppale bu baax a baax jeunes yi ci ci ci ci Kolda donc di ko wax na góorgóorlu nii la Sénégal ñun ñëpp ñoo ko moom donc union fait la force di leen jox rendez-vous à très bientôt jërë ngeen jëf.